voilà dafa marqué li nga xamante ni moo di empreinte am tarkala muy Aziz Dabala waa dégg ko ci loo nekk. maa ngi <laughs> waa Dakar instant ngi noonu dëgg neexul dama ne ku la festo moo la loo te da ngeen xew ci jamono yéenay feeling paaj maa ngi nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa àddina di leen xamal ni namoon naa leen këj naa ci internet bi nag ndax lan dañoo ne ci job ne ci préparation benn xew-xew boo xam ne dëgg neexul àddina gépp kenn lekkatul kenn naanagul pas maa ñëpp di xaar. maa ngi nii tournage laa jógee damay ñëw fanaan ay fecc ci xëy demaat tournage dëgg neexul waa bëgg fan siy bëgg parce que tamit ñu xamuñu xamewuñu ay tànk ginnaaw chaque jour Pama day ñëw ak lu bees tàkk te am na lu ñuy préparé loo xamante ne nag surprise da duñ ko wax nag cat dafa gaaw mais l'essentiel daal moom ku fa 5 heures fekkul doo am place. 5 heures dafa teel de. mu yéen yow xale yi fa la ñuy puudaroo. puudaru mel na yéen kii <laughs> fa mais du takk foofu. muy yéen xale yi fa la ñuy may këbee. Mm. salon yi lañ déplacé indi ndax diggante bi boo gëyee make make bee fii bëgg ñu day met day ñëw fa make fa xale yi fël falaa daal di tëltalaale mhm. ndax paama du leen may dara xale yi daal di tëltalaale yow fan ngay génn ah loolu moom surprise la parce que ku ne xam na ne Aziz Dabalaga ca Kumba Gawlo laa fa gëj de pama moom ma fa yóbbuwaat grand théâtre gëj naa fa ca Kumba Gawlo keroog bi ma fa bopp la ma fa def ma nga fa tege mais pama moo ko war a teggi pama moo war a teggi jal ba ma fa jaloon te dinañ ko teggi incha allah waaw waaw mais dana métti yàggaan ah, la fin avec Pama Diop doomu Tëngéja ah. Aziz Dabala ngi nii alliance alliance alliance Kels. waaw bientôt leus nag mi ngi génn waaw. Aziz faa nga expliqué loolu ci leus bi ndax nag gars yi ngi ci répétition bi yaakaar naa ne dana métti yàgg Aziz ah le vin mhm. waaye nag Aziz a ngi waaj lu bees. Mhm. Aziz ngeen lu bees nu mu tudd. waaw VIP maa ngi ci tournage yi. waaw kay maa ci gis Bécaye Mbaye maa ngi la seen ci biir. waaw VIP sañse dafa mel ne yéen ay géwélu sañsekat ngeen. waaw képp kuy VIP rek doon daaraan fii ci Sénégal Ndiaye yaa nga ci sa leuse man nag sama personnage foofu mu ngi fa nekk euh, téer laa fa mais téer bu garaaw garaaw bu neex sax xam nga kël si moom bu nekk téer day neex Bécaye Mbaye ñëw na fa képp kuy ndaaraan ñëw na fa galo bàyyi ma foofu daal xoolal ma xamal ñaar sax dina ñëw képp kuy ndaaraan fii Sénégal la dina ñëw ci VIP sax ñu abiyee la waxtaan ak yow ndax aar bi moo toll foo xamante ne nit ñi dañoo ne ci stress bu ñu leen teg lu metti da nga leen dañuy toog seen saal teg seen i lekk ak seen i naan teg seen caayan ñu bégal ci lañ toll mais fu mu toll nii dañoo teg VIP sañ si relais jàkkaarloo grand théâtre man li ma ci jaaxal dama la gis léegi ci benn télé ngay présenté benn émission Sénégal gi jëm nga transhumé am nam waay waay waay waay kenn mënu mucc ci Sénégalais yi aw ma droit jógee voyage bugaan géy ma wër ci digg dëkk ma ne cëpp Sénégal njaay gii moom i woo ma ma këlisi foo nekk mun ma ne maa ngi Sénégal mun ma ñëwal ma ñëw moom bugaan géy maa ngi koy gërëm ak moom ñu dagal ma salaire bi am doole barke danga neex mhm. wóoruma télé bi it télé bi may wër liggéey naa loolu ba pare macha allah yàlla na yàlla xet mu defal ma salaire contrat boo xamante ne dëgg neexu amu fu mu yem contrat verbal la <laughs> kon daal contrat bi du jeex rëy ko dee ci télé la ci télé laa nekk du jeex dañ koy continuer mu doon ku baax moom mi dani ma ñëw fekkoon ràcc nag mu nekkoon ci benn affaire bi bu ma ñëwee ci ràcc xam nañ ne ràcc ki ko moom ñëw na ah xoolal rek ah xoolal rek nit ñi ñooy siise xoolal rek. nga ànd ceeg Ndeye Gueye Ndeye Gueye junior macha allah seen duo bi nu mu fa demee. ñu baax ñoo xamante ne ay ay yaay faal lañ. Kélé Dóor mbokk mi yaay ah, Bougane Gueye moom mooy télé ba Kélé Dóor teg ñu ci kot nag plateau bi léegi mu pare plateau bu pare di ngeen xam ne lépp dëgg la heure boobu moom xamal ak télé bu mu mënti doon heure bi ràcc li daw non gars yëpp dañuy sape ñëw ci seen TV loolu maa ko man Aziz Dabala alliance Kals. waaw léegi karaw gi Aziz karaw gi dafa tuuti woon mais léegi xoolal karaw gi yow namatoo cheveux naturel de. Ah, bi imee la cheveux imee. papa Dia wax leen li may def ci cheveux bi. day koy xaaji nii. lal benn benn benn xaaj benn benn xaaju cheveux bi lay dugal ci suuf daa ci def kol bu ko defee moo tax nga gis moo da koy kole ba léegi kol bee ngi ci saak bi bu ko neexee day rempli mu gën a ñëw ba fii kol <laughs> bee ngi saak bi saak bi yëpp cheveux la ah. senegal que Sénégal yi ba nee nañ moom karaw gi macha allah am na lu mu ciy teg. coqoti preuve coqoti leen xool leen xool leen vaar mu ngi noonu xool leen mu ngi nii. Keita bàyyi ma def di ma yàq waaye noonu doomu tooro du laa xam naa nag yéen a ngi am yu ci diggante bii nii mais yàlla yàgg na ak jaamam Pama jar na ko l'essentiel li leen di xamal mooy yenn détails yi mënuñu ko détaillé fii da ngeen ñëw ñu daal di yaatal Pama la 20 Aziz Dabala sur gëjoon naa fa ak Kumba Gawlo Seck la ma fa tegoon Pama moo ko war a mën a teggi maa nga dem ci biir répété ji Pama Dieng su ma koy feccal damay mel ne kuy feccal Chris Brown non si parce que ñaari ñaar dañoo nekk link boo xamante ne maag moom munu bàyyante yée mënuñoo bàyyante mënuñoo bàyyante non te dañu ma dañ moom <laughs> non xam naa moom li muy wax à part en dehors caméra bi Pama Dieng ak du yomb mais nag sama xarit la sama xarit la parce que cadre Diop rek la ñuy waxee ah cadre Diop mais à part Diop bi sama gaañ la su ma koy feccal damay mel ni kuy feccal Chris Brown dama bëgg ak lii dafa dafa dafa fidèle dafa sincère ci man li may wax nii quoi dafa doon gaynde neexal liggéeyal mu bëgg lu baax boo duggee ci salle bi xam ne kii ku bëgg lu baax la man dama bëgg lu baax parce que man képp kuy daanaka fii Sénégal liggéey na yow ba du ma feccantu moo tax moom bu ma ko fekkee ak l'événement bi mu ñëw nii non daf ma yokkaat force fecckat yi ñoom day xaddi Nabou Leye hmm, Maguette Seck mm-hmm. Khady Bambara roqee ñu ngi waaj juróom ñaari fer la ñuy takk ay fer xoolal cristal bi waxuma la fer kaw si cristal bi nag cristal bi nga xamante day dër kon jeex na xale dañuy lëmbal toog ci ay paan fii lay xewe waa paan lëmbalu paan mooy am grand théâtre nag la ñun góor ñi dañuy def suñu ramb bi Samba Sembe dama leen di mosal tuuti rek Samba Sembe la ñuy def indi démb boole ko tay dal di koy mélangé Pama djey samp ci digg bi nak nag Michael Jackson bu sorti day way day way day fecc mhm. mën na fecc moma da ko fecc xam ngeen lool dafa mën fecc pire day jox ca kaw te inshallah allah di ngeen ci xam dara ñu ngi ci travail ñu ngi ñaan nak yalla musul ci tak làmmiñ ak bët bu ñu egg rek suñu sago Pama djey yalla parce que engagé na lo xamantene Sénégal gep ñu ngi koy xaar te ndam rek yaam da ñaan papam ñaan kon nañ ko ñaanal lebu gep nañ jox